Lamine déglu maay wax bisimilah bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Pikine maa ngi leen di nuyu waa Pikine maa ngi leen di nuyu di nuyu bu baax waa réewum ngor bi Lamine Gueye jiite maa ngi leen di nuyu di nuyu Mapenda Faye di nuyu le docteur Cheikh Dieng di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Ibra Gueye bi nga xamante ne moom it candidat la woon à la ville de Pikine di nuyu responsable yi nga xamante ne ay responsable national lañ jógee Dakar teew si di nuyu le chargé des mouvements des structures Saliou Dieng moo ngi fi jóge ci parti démocratique sénégalais mais di nuyu le responsable de l'UJTL Ibrahima Dadou Diatta mu taxaw sama wet di suñu doom di xale bu yaru di leen nuyu di leen sagal di leen sagoo di leen wax ne ñun parti démocratique sénégalais ay nit yu tàmm combat ay nit yu miin combat ay nit yu miin terrain lañ ay nit yu mën a xeex lañ ay nit lañ yoo xamante ne ragaluñu lëndëm saa su ne mën nañoo xeex ñun à tout moment rek ñun mën nañoo xeex suñu xeex ah ju ne saa yu neexee Timbo suñu ko engagé ñun doomu Pikine gënuñoo wex ñun amul benn doomu Pikine fii buy taxaw man maa ngi juddoo fii ci ginnaaw kër gi kër Bira Gueye Cheikh Thiam amul benn doomu Pikine buy wax ne fii yaa taxaw na yaa ëpp fi Mame Diarra Fam ça n'existe pas kon nañu dal hélas hélas nañu dal nañu dal ñun dañu ne nañu dal nous on parle avec Lamine mu ne sàcc nañ ko 900 voix te daf ko gagné Cheikh Dieng gagné 350 voix te gagné ñaari muy lambu Balla ci benn tàkkusaan ñaari jël ñu door Timbo door ko dooraat ko benn complot juga ca ki nga xamante ne mooy ministre de l'intérieur di Antoine Diome orchestré ko ak ki nga xamante mooy Macky Sall mu nga xamante ne sàcc rek lay liggéey ci réew mi loolu ngeen war a xeex du guerre de positionnement affaire bi bataille la ñun contre le gouvernement pas ñun dans nous c' problème donc jàpp naa ne nañu fexe ba nga xamante ne nañu fexe ba nga ne. demul de jox ko mu ah, fa egg te ñu bàyyi problème crypto personnel yi ñoo defar PV yi moo gagné Ablaye Timbo Ablaye Timbo sàcc la Macky Sall ngandam maamu sàcc la. merci merci. seen càmmeñ Antoine Diome ponkalu maamu sàcc la. les voleurs de la République rendez la mairie de Pikine merci beaucoup. voilà li ci dellusiwaat ñuy ñaxtu macha allah mën naa ci dellu dellusiwaat ndax da ngaa naax ci naar ci guuxum soow. da ngaa woo naar ci guuxum soow mm. dañoo dem élection mm. ñu xam ne élection dafa métti Cheikh docteur Cheikh Dieye dem ak nijaayu Macky Sall mm. li firndeel mooy même journaliste yi ñoom seen bopp sax xam nañ ne dañoo sàcc élection yi journaliste bi nekk wal Walfadjri dafa la ne moom Pikine la doon siège centre bi mu doon siège docteur Cheikh Dieng moo ko gagné ku weddi na ko ñëw jël si léegi mu wax leen ñaat voix la ko rawee kii li mu ko rawee dëkk bi yëpp xam nañ ne hold-up électoral man bi ma ko gëjee gis j'ai cinquante huit ans yàgg na mais maa ngi koy soog a gis ci élection yi yow gañewul la nga ne par force yow yaa gañe loolu naka la mën a nekkee. seen i waxal mi ngi concerné Ablaye Timbo. Ablaye Timbo la concerné si boppam c' est un grand voleur sàcc bu mag la munul liggéey Pikine ña jox Pikine ñi ko mën a liggéey ñu liggéey ko waa wàllu ñoo gañe lii docteur Cheikh Dieng moo gañe na ko jox victoire am bu yeboo ñu installé ba pare. mais bu installé ba pare tam du ko tax am jàmm. loolu moo ko installé ba pare. est-ce que li na am benn njariñ. waaw parce que loi moo santaane loolu. Hmm. boo gañee bu defee 15 jours mën nga installé. Hmm. mais après da ngay topp recours bu recours bi génnee dañ koy bale abal mu abal ñu maire bi nag. recours bi la 12 lay génn nan ñun dañuy xaar moo tax ñuy marché ni tey. daal di dëggal ci ngeen di. non mënut a dëggal ci mboo nag parce que dem nañ xool nañu suñuy voix yu ñu am ñun dañ am nañu jàng am nañu jàngul xool nañ ñuy voix xam nañ ne fi ñu teg suñu tànk foofu la bu bu nekkoon recours bi bu nekkoon ne gagné kon duñ ko topp ba heure bi waaye nañu xamante dëgg docteur Cheikh Dieng ku ko xool xam ne dafa jàng dafa ami diplôme am bu nu rey ci boobu bu nu sonal na génn fii maire bi rek du liggéey na liggéey lam na dem sàmmi ay nagam moo gën mu sonal nu fii ci maire bi. fi nga xam ne moom mooy euh, maire bu Amadou Diarra wax nañu nag fa la ñuy aw waaye fekk nañu takk der yi ñoom it taxaw ba ne euh, ci beneen itinéraire lañu leen teg te it foofu la ñuy aw ñoom nag wax nañu ne fii lañu ñu bëgg aw ndax fii moo waral xeex bi. waaye euh, dispositif euh, sécuritaire bu am solo la ñu fekk fii ngi rek ñu daal di fi euh, taxaw kon nag ñoom ñoo nekk noonu di wax ne amalu Amadou Diarra sàcc la. waaw maa leen di fay bu baax a baax. Euh, manifestation bi waa wàllu woote. ah mais woote bi c'est normal li tax woote bi am dañoo gañe suñu mairie ñu bokk fokkati sàcc ko boo xam ne état da leen di dimbali état da leen di soutenir ta du yoon euh, élection yi Timbo moo ko gañe léegi nag sàcc bi moom partout la te lool du yoon Macky nag moom bu bëggee jaam dañu delloo suñ mairie rek wax bi jeex. xeex bi lii euh, dina tax ñu delloo leen mairie. non delloo mairie par force la. wala maire bi du fi liggéey waaw wala maire bi moom du fi liggéey sàcc moom kenn du ko fi bàyyi maire Pikine di sàcc suñu maire yi ñuy liggéey di nekk si donkaa sigi loolu du yoon kon moom dinañu delloo suñu maire par force wala moom Pikine moom ville de moom kenn du fa liggéey moom waaw dem teg fa keneen Macky Sall na xam ne doomu Pikine yi bindoowuñu nii ñun ay noobul lañu li ñu xam am suñuy kat sañ sa ba ñam voté li ñu voté dañu joxe ko nañ ñu bu yombul tamit ñun du yomb ci ñun ndax suñu Pikine gi ñoo ko moom te fas yéene nañ koo defar ba mu baax te ki ñu fa teg dina fa toog pare wuñu pour bàyyi pare nañ ba Lamine Gueye di toog ci maire bi incha allah kenn du bàyyi bàyyi jëm ba jeex lu mu laaj rek ñu jox ko Macky Sall nag na xam ne doomu Pikine yi mérito wuñu lii mu ñu teg mérito wuñ ko na xam ne ña ko tabboon ñun ci lañ bokk mérito wuñu loolu yow ma nga ko def parce que dugg ci bureau de ñu ni deux cent personne ñoo voté voix mi ngi ci internet bi boo demee ci sama internet di nga ko ci loolu ak sàcc mënu ko mun bu gën a leer mënta nekk càcc googu nag la ñuy wax juge bi mu dindi ko li nga xam ni mooy dëgg gi ñu jox ñu ko jàmm ni ñooy waa burul lool nag burul lool nag duñ ci dellu ginnaaw tey duñ ci dellu ginnaaw ëllëg lum jaral président Macky Sall ñun waa coordination de l'opposition à Pikine mu nekk coalition wàllu coalition defar sa gox coalition réewum ngor ak coalition yeewi lum ci jaral Macky jaral nañu ko fii ba juróomi at yi nga xam ni moom la fi bëgg a teg Timbo duñ ko ko duñ ko ko may tey maa ngi leen di fay. waaye ci euh, manifestation bi wàllu woote ak yeneen i kuréel ngir xeex li ngeen tuppee LDOP électoral euh, fii ci biir Pikine. waaw dañu ñëw rek pour soutenir le maire Cheikh Dieng parce que moom moo gagné comme que moom moo gagné nag ñu bëgg koo foqati moo tax ñu ñëw pour soutenir ko jàppale ko xanaa ndeysaan nag lii bu ko saawaa ji gisee Timbo da yaramam dana daw. parce que nag itam dëkk doo bëgg dëkk ba dëkk bëgg dëkk fa dëkk baa bëgg nga dëkk fa comme que dëkk bi nee nañ dootul moom Cheikh Dieng la vraiment il doit avoir le courage quand même de de la place à Cheikh Dieng donc nous sommes venus le soutenir à 180 pour cent. recours bi naka génn lan ngeen di xaarandi euh, ci boobu la ndogal. ah loolu nag mënuma cee xaar dara ndax gannaaw moom ñoo moom seenum réew te yaayam la nañ xool rek daal xanaa ñu delloo suñu bopp daal ci magistrat yi am confiance suñuy magistrat yaakaar ne dinañ trancher li nga xam ne moom moom mooy mooy la légalité des choses. plan d'action yu ngeen di waajal ginnaaw manifestation yi. waa xam nga politicien moom du ñàkk ma du ñàkk manifestation yu muy waajal waaye nag ku xam foo jëm doo fa yeg waa xam nga ne PDS moos xeex 26 ans ah xam nga ne bu nëbbee bi boor it na beneen bu mu làq ci wet gi bu mu dul wane na nu fi dégg ba na dina leen fekk. incha allah jëm ci wàllum géejawaay it mënuñu laa gis te doo ci wax. waaw moom jàmm rek a fa xew jàmm rek a fa xew ñu ngi xaar pour def suñu conseil municipal pour def suñu adjoint au maire. ci bureau municipal bi lu ko waral. waaw xañ na maire bi mooy mooy waxtaan rek xañ na maire bi moo jëlagul temps rek comme que moom moo abrité à appeler à convoquer su convoqué rek daanu ko wujji ci kàttanu suñu borom. ñu ngi lay jaajëfal